kattan ba mu mottali mbooleem ay naalam yëpp ak ay yéeneem ci liggéeyal xaadimu rasuul di ko ñaanal njabootu sëriñ Tuubaa gi yëpp di ñaanal ak a siyaare sëriñ Abu Baraka Mbakke xalifa Cheikh Ahmadul Fadal ak mbooleem njabootu sëriñ Fadilu yëpp suñu borom yàggal leen di jaare borom ëtt bii di Cheikh Abdul Fatah ko ñaanal yàlla suñ borom yàggal ko te dëgëral ko di jaajëfal bokk yi nga xam ne mbooleem njabootu sëriñ Fallu yi nga xam ne ñooy taxawee taxawaay bu am solo bi ngir di ci waajal bis bu màgg bii nga xam ne dañu ci fàttaliku jàmbaare lislaam di Cheikh Mamadou Fadal di jaajëfal sëriñ Ahmadul Badawi Mbacke mi nga xam ne eh, moo jiite liggéey bu am solo bi waaye sëriñ Alaaji Njaay Cheikh mi nga xam ne moom it ci taxawaay yu am solo yi ñu di leen sant bu baax di leen gërëm di sant it kilifa yu baax yi nga xam ne ñoom la ñu feggoon mu mel ni tomb bi nga xam ne dañu ko tànn di ko waxtaane te mbokk yi déglu sëriñ Mor Mbacke xam sa diine indi ci lu am solo muy al iraadatu saadiqa di tomb boo xam ne euh, dafay géej goo xam ne kenn ku ci nekk mën na ca tàmbali lu yaatu keneen ñëw tàmbali lu yaatu te du jeex kon luñ ca tànn lu mu néew néew rek mën naa nekk njariñ bu ko defee kenn ku ci nekk mën koo yóbbaloo mu nekk lu lay mën a jariñ ndax Sëriñ Tuubaa bi nga xam ne moo taxawal yoon wi moo jàngaleel boppam lan mooy ak murit ci ñaari fànn nag muy benn bi li ñu tuddee nazariya ak li ñu tuddee tatbiq yi muy pratiquer ko ak tawri nit ki mu mu jëf nu gis ci moom walla mu bind ko nit ñi jàng ko nga xam ne bu ñu la waxoon ne la nangam moo di ak murit bu fekkee ne mënuloo koo jàng boo xoolee da nga gis ab murit boo xam ne moo ko formé yar ko def ca moom loola kon dafa bind ak murit ba noppi defar ay murit xam ne bu fekkee ne yaa nga ca àll ba di dégg mbirum Serigne Touba di ko gëstu boo boo jàngee mu bind ci murit da ngay di xam ne lii moo di murit waaye boo dajee nag ñamu yar def leen dëgg-dëgg ay murit te gisagoo sax la mu bind da daal di xam ne lii moo di ak murit euh, muy loo xam ne it al dafay yoon woo xam ne yoonu tasawuf la sëriñ tuuba sos ko تك كو سي على الايمان والاسلام والاحسان واي سوكاندي كو كو سي نيانتي مير موي خام خام اك لغي اك جامو يالا اك تيغين يون غرم واي اتي وونا كي توحيد اك فقه اك تصوف دي يون وو خامنا نيت دا فا يون وو سوري مانام باعيدتون على الافراط والتفريط دو يون اوبل اي دو يون ييسال nga xamna lu ci wara mat señ bi def na ko ba yobbu ko fa mu yegg kon mëne su ko jéggi ndax ku ko jéggi ëppal nga waaye mat na li mu war a doon it ba ba manquéwul euh, ba nit di ca di ko yéesal kon lu sori ak ëppal la waaye lu sori ak yéesal la mu mel ni it kon mooy la mu waxoon ne ñett yi mu taxawale yoon wi te wax na ca la tabax ak toppam dafa wax ne sama topp yàlla gépp génnul ñett bi dékkiri wa sunnati wal ijmaa nga xam ne lépp lu sëñ Tuubaa di jëf baa mu digle ko boo demee fekk ko ci alxuraan wala nga fekk ko ci xadis wala nga fekk ko ci waxi borom xam-xam yi nga xam ne kon lennam génnul alquran ak xadiis ak li borom xam-xam yi saxal moo tax mu seddale woon ñu wax ne murid da ñetti ñeent ñeent ñeent lay doon sax ñeent euh, dafay am ku ñuy tudde al murid nga xam ne damay wax ne mooy misaal boo ko doon misaal mooy gabi bi gabi bi mooy euh, ki nga xam ne dafa ñëw ci armée bi toll ci sol tenue militaire bi waaye taxul mu di général du ab commandant it waaye sol na tenue bi gàddu na fetal gi moy nit ki sobuna jaayante koku mu almurid murid amna as-salik amna as am amna murid wasil ku jek gi di almuridu huwa muslim al muhsin alladhi la yuridu siwa mardatillah fi kulli aqwalihi wa afalihi moy ab murid deug ba ci jek moy faaw mu nek aju ku gëm yàlla nek ab julit nek kuy rafetal waye du bëgg nak lenn lu dul ngërëmul yàlla ci bépp yëngoom ak dalam kon mu'minul muslimul muhsin ñett yi nag sëñ bi nee na ku ko doonul saa yoo ma wutsee yàlla dàq na la nga sori ma ci saasi kon mënee su koo ñàkk a doon ba ku ko doonul mënoo nekk dëgg-dëgg am murit moo tax ci wakkaan xàq naa yi kër ku ko nekkul saa yoo ma wutsee ci la suñu borom xaj ba nga sori man laysa yakunu muminan yaa za zaman ba ca laysa yakunu lu ci nekk da cay wane ne ki nekkul aji gëm dëgg mënut a ànd man ndax yàlla dàq na la ba nga sori ma daal wax ne mumin ak muslim ak yàlla seere ne man mii sëñ Tuubaa moom la nga xam ne comme shahidillah bi annii muminun wa muslimun wa muhsinun wa mudimin moo tax ku ko doonul nee na doo mën a ànd ak moom laa yurul si amardat laa nag mooy du bëgg lenn lu du ngërëmul yàlla innal murida laa yuridu abada xayra rahmani ay soxasada te ngërëmul yàlla Sëñ Tuubaa daana wax ne boo leen di ñaan yàlla na ngeen ko ñaan lu mu dul may ab saay-saay daan na yàlla nag li mu dul may ab saay-saay mooy ngërëmam kon am murit momit ngeureumul yalla rek lay bëgg mom lay yorawut señ bi nga xamne mo it sos yoon wax na ne ma ngi len di ye yen ñepp ngeen xamne lu jëk li di dajé fi man muy ngeureumul yalla li mam ay coonaa ko jiitu kon ay coono moy laltay ngeureumul yalla kon bala nga am ngeureumul yalla faaw nga son motax mu daan wax mag ñi ne len na ngeen xol seeni bay ñi len jitu won ci l'islam te ñoy sahaba yi daj lu gëna metti li ngeen daj nangu nañ seeni alal nak lañ leen ci ndox genn nañ leen ci seeni kër ba seenu tagg na fàng ci alxuraan nga xam ne Cheikh Lamine Diop Addaga nii nee na bari waa na laaya ji sëñ bi leen koy nettali mag ñi bu leen ko waxee muy lil fuqara muhajirin alladina uxriju min diyaarihim wa amwalihim yabtaxuuna fadlan min allahi wa ridwanan wa yansuruuna allaha wa rasulahu ulaika hum sadiqun kon day mel ni ñooña ca la ñuy roy mooy ñay tax nit ki mën a yegg fa mu jëm mu ne ba ca topp mooy saadix bi mooy koo xam ne day dëggalu bëggam ci digganteem ak sëriñam jëfe lu mu ko digal ko bañ a diingat bàyyee ko boppam ci di ko tànnal waaye gis nga ba mu koy tàmbali dafa wax ne melo yu murid saadix kat ñeent la yaxal naa ko ngir ragal ak woru kon sëñ bi moom xamoon na ne leneen dana ci tabbi lu ci bokkut moo tax ba mu ne sifaatu saadixin muridin bixtisaar arbaatun nadamtuha xaw faxtiraar dama ko yaxal way ko bind ko ngir ragal ak am ndax yonente bi alayhi salaatu salaam dafa waxoon ne saa du taxaw mukk te nit nekkul di jëf na ñu ne ko yaa ngi jëf bidaa wala nit di jëf bidaa ñu ne ko yaa ngi jëf sunna mooy kon xam na ne nit dana nekk ci lu dul ak te te du ñàkk ñu ko seereel na ko yow mii kat murid saadix nga euh, ngir adduna nga gis ko am pësif nag di dox ci ak taalibe ba nopp ñu ne ko du ab taalibe mhm. moo tax bi ne waru googu nag laay ragal moo tax ma ma tënk ñeent yooyu ba ca jëkk muy siddaxu fii mahabati cheikh abad muy dëggal ci bi borom xam-xam dañuy wax ne al mahabatu hiya asaasu taa ak cofeel mooy fondement ak topp ku bëgg a tabax building da nga koy defal ay séance defal koy den defal ko simel yu dëgër mooy tax loo ca teg ëllëg mu mën a dëgg maanaam taalibe bi bu bëgg sëriñ bi day wér ci moom lu ko sëñ bi teg day woyof ci moom moy moy bëgg moo tax mooy wommat yonent bi alayhi salaam daana wax ne yow sama borom may ma ma bëgg la te way may ma ma bëgg luy tax ma bëgg la motax ak bëgg mo gëna kawe fi ne mbolem bo gisé ab jaamu yàlla yëggu fa muy bëgg nitu yàlla mo gëna mag ci li nit di def kurmaan yi waxon nako sëñ biit amna fu mu ko jàngale neena bëgg nitu yàlla kat ndàmb la inna mahabbata awliya al aghyar kanzun azim min kunuuzi la is la yuhibuhum ila man arada la an yafuz moy ndake yàlla bu neumut ci nit ki mu taxé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 boo bëggatee ci sab sëriñ lenn njariñ jox koy njariñ sëriñ ku koy joxe njariñ mu di la jox ay njariñam mu ne ba ca topp mooy tarkul intraat bàyyi diingat walaw bi baatinin nag doon ko ne da ngaa wéet sa néeg ne fa yow képp di diingat ci sëñ bi ak werante yaa ngi yàqu yàqule soxna fat ja muy taawu sëriñ Tuubaa nga xam ne sëriñ Tuubaa seere woon ne murid saalix la nee na ab sëriñ ab seetu la ab seetu nag kenn du xees mu ñuulal la kenn du ñuulit mu xeesal la saa yoo yëgee ci sëñ bi benn ayib rek jàpp am na ci dan ne demal defaru ju ndax yaa ngi yàqu ab taalibe moom du yëg benn ayib sëriñ moo tax waxoon waxoon daanaa ko leeral lu ci lu bari wax ne juróom benn day yàq ak murit te loolu lu bari la léegi muy sëñ bi daa waroon a sëñ bi warutoo na lu tax sëñ bi lépp ak sëñ bee murit laa waaye sëñ bi ak cëppatu loolu day day ak murit mooy mooy sëñ bi bu sëñ bi waxee nga ne daa a noppi sëñ ne daa waroon wax sëñ bi jiital nit ne lépp ak sëñ bi ndax kim jiital murit laa waaye lu ma enragé wul sëñ bi daal daal di cëppatu loolu loolu loolu doog tegi loolu sëñ bi da ko tere wa maahu salabil ixtiyaar li wax zannihi bi laa inkaari nag mooy da koy bàyyee sag tànn moo lay wommat fam lay jëme moo tax sëñ bi dafa daal di alerte na kiy wommate nee na ku nit ñi dëgmal te wonoo leen yàlla lu mooy won leen sa bopp baa nga won leen seen bopp yàlla dana leen boole womma tabal sa war wa man tawajja annaasu ilayhi wa tawajja huwa ila nafsihi aw ila anfusihim dafahum rabbu nas ila naari lati waqudaha annaasu wal hijaara kon sëñ bi wax na kon kiy wommate moom it fi muy jëm boo ko xasee am nag fa hay suma amarakal mu rabbi fam tasilil amr tasili rabbi sayxu tërbiye bu mat boobu boo ko amee sëñ bi nee na bu la wommatee bu la digalee defal bu la teree mu ne ba ca topp nga xam ne kon mooy bàyyee gi nga ko bàyyee sa tànn amoo dara looy bëgg mooy la mag ña doon doxe ñett yooyu ñeent yi ñu tudd léegi nag nga xam ne bala ngaa jàll ca lee boo ca xoolee euh, Cheikh faadal Fadal ñeent yooyu benn bu ci nangu nu mu ko doxee muy ba ca jëkk mooy almahabba muy cofeel gi mu amoon ci Serigne Touba ak cofeel de mënta weesu ci nga yegg ci ne bii xubbi lahu dahra yuxni an hubbi siwa mooy bëgg gi ma ko bëgg mo fess sama xol man ba bëggatuma dara moy kon la sëñ bi waxon rek ci dimension bale mahad mahabatil mukhtar sayyidina hubbil maganiya wal ahlina wal walada dammi wa ahli wa awladi fidaun lahu abdan xadiman lahu muskaana li sanaba kon ni sëñ bi defon ci yonent bi ba tax mom neena du dom du alal du dara bëgg rasulullah ma gëna lépp Cheikh abdul Fadal it loolu la def ciofel gogu la am digënté ak señ Tuubaa ba wax señ Tuubaa nako man de amatuma dara lumay bëgg ci aduna lumay yow te ndax bëgg gogu lumay may waaye fi kulli xiin manam waxtu wu nek cofeel gi ma am ci yow day yokk saa yu ma xëyee saa yu may tëdd saa yu may dox maa ngi dolli ko ak bëgg la ba yegg ci ne saf ko du moo an la xubbil xadiimi farden ara kon léegi ki yegg ci ne tuur xéewal muy sotti rongooñ ngir sëñ Tuubaa farata la mm-hmm. kon loolu wan na ne fa la fa la li ñu tuddee raaya daytalu ak cofeel di yem ak bëggam it yegg na ci bi jumaa ji noppee tam dugg ci biir barabu sëñ bi di ko wër dacaa bokk waxi wolof jum doon wax moom sëñ Fallu da doon wër barab bi naan ko Mbàkke fii lañ toll tollale la fi buñ ko weesoo weesaloo ko ndax loo jërut amut loolu day day wane ak bëggam Serigne Touba ndax loolu loolu bokk na ci li mu doon wëree barab Mbàkke fii lañ toll tollal la fi buñ ko weesoo weesale la ko ndax loo jërut amut kon loolu dégg nga ci bëgg gi waaye dégg nga ci it ne wane ne bi mu defaree jumaa ji it ba noppi ba mu xam nga ne xam na ne du fi yem booba jamono toll foofu waaye xam na ne jamono danañu mu romb ko moo tax mu ne fi lañ toll tollal la fi buñ ko weesoo nag weesale la ko ndax loo jërut amut kon loo jàpp ne njàmbaar la ci sëñ bi rek sëñ Fallou ne ne sëñ bi ëpp na ko loolu kon ak ciofel la ci sering ak euh, Serigne Touba ba ci top moy jëfe ndigal euh, moy lepp lu massa lu serigne Touba massa a bëgg Serigne fallo nga ci dawul def dara lu serigne Touba lu serigne Touba santaanewul ak talibé mu fonk serigne Touba mas wax fi ci kër ci këram gi serigne Fallou ndjay gédé la ko euh, euh serigne Aliou ndjay gédé bobu dafa julli ba selmal dan nako bo gisé gisee fonk dara borom barak bay tax dan nako fi ba Makka bu téré yi ci jamono ñett ko mëna sot sëñ mut dem ca sëñ mut buusu ca Gede muy bàyyi sëñ maam buusu ak sëñ mut dem ca njaareem ak nun ñuy toog waaye nun jaay nañ lépp jënde ko borom barab xam na kon wane na ne bu dee xam-xam moo fi waaye jaay na ko jënde ko Cheikhul Khadim mooy la ko gënaloon ci lépp lu mënoon a doon moo taxoon mu jël loolu ba ca toppit mooy daawul dii nga bi ci dara mooy ah, la ñu tudd al mooy sëñ bi sëñ Fallu xam ngeen ne wax na ne lépp lu lu mas a bëgg rek sëñ bi la koy ñaan moo tax benn bi ca njaareem sëñ jéeri waa daan sugu mu baax moom nga xam ne ñu bari saxal nañ ab cëram ci yàlla dafa ñëw ndiarem seigne mourou Moussa ñëw nuyu si ko ak Serigne Fadilou mo wax seigne Fallou nako li ma lay wax kenn nit génnu ci loolu ko seigne jeri wax nako ba ci sa seigne Touba mi sax génnu ci dal nako mbindef mu mën doon war na lay liggéeyal yow Mouhamadul Fadal bu ko mënutul war naa wut ponkal mu lay liggéeyal yaw nak dara waru la ci kenn loolu seigne jeri ko waxoon seigne seigne ca ci ndiarem nako ku ne war na lay liggéeyal bu ko mënut wuti ku lay liggéeyal yaw nak dara waru la ci kenn loolu kon day wone ci rem motax amna ko wax ne sëñ Fallou kat man waddahu udda min al axyaari waman jafaru jafaahu bil axyaari neena sa saa yoo ko bëggee mën ngaa yëkkati sa loxo wax na ci ñu bax ña la bokk boko boo ko wanee ginnaaw yaay ka gëna a kàccoore ci ña gëna say say ne boo woné ginaaw sëriñ Fat mu ba ca topit moy leppam manam am dara lu muy bëgg wala lu muy japp lu dul lepp di sëriñ Tuubaa rek loola nak bu dajé ci yow nak ne fa kullu man jamaa hadihi sifat min al muridina fa yudriku sixaat maanaam boo dajalee yi moy tegtale ne yow murid sadiq nga manam bu ñent yi dajé ci yow ba ca topit moy mune mourid bi bëgg yegg faaw muy jëfëndiko ñatt moy nit ki dafa am aliment bi muy lek ngir ak magam gaaw moy dox sa dox dox jëm ci yalla dafa am aliment bu lay dundal ba tax saw dox jëm ci yalla gaaw amit euh ab yobbal ngir ku bëgg jëm ci yoon waye nak yor gannaay motax señ tuba wax ne khayru taami li murid as saliki dawamu dhikri si jalaali malik Sëñ Tuubaa nee li gën ci mourid bi bëgg yegg ci yàlla mooy saxoo tudd yalla te loolu mooy jàng alxuraan jàng xasida te yaakaar naa ñi nekk ay ndaw sax gis nañ image si Cheikh Abdoul Fadal foo xool yaa ngi seen téere baa ngi mu ngàbb ci loxoom di jàng loolu dafa caa doonlu Sëriñ ko wayka bi ko wariste sa cheikh fi ilmin wa maarifatin man dalla si laa yuri fii ka warisahu yaa doonlu Sëriñ Tuubaa yow ci wilaayatu waaye yaa ko doon ci xam yàlla bu wér wér mu ne waaye am na ca bu ca toppit mooy dafa wa zaad wa xayru zaad yi tuqaa wal faqru li man lahu qablu wa baadul amr faaw nga ragal yàlla yow mi nga xam ne yaay dox jëm ci yàlla sa borom faaw nga yóbbaale yóbbal boo xam ne ak ragal yàlla ak soxla woo yàlla kenn ku ne xamoon na Cheikh Abdoul Fadal bu dee ci tom boobu ni mu meloon ci digganteem ak borom ba taxoon mu yóbbee ko yërmande ju yaatu ji nga xam ne man lépp am sañ-sañ bépp waaye bàyyi xel boromam ci ragal gi ragal yàlla te ragal yàlla ñaari jéego rek la am lu mu la digal nga def ko lu mu la tere nga bàyyi ko te mbooleem yi yàlla digle na mooy moo moo fondé l'islam yëpp sëñ Fallu matal na yëpp ponk mm-hmm. diine yëpp matal na ko tabax jàkka tabax juma aj makka dafa def lépp bind alxuraan kon matal na mm-hmm. ne nag ama silaahu fa say fa به يكون قاطعا حبل تمام يومي بقى دم نك دعنا يور نك غنى ندخ أجريسير نجت الخطأ وطريقه عن دنيا دعالة نت تما يبقى نك بني أدونا سامو سامو جاي تخدي ملسة سيف لوك سامو لو جامان الدعورون نجت مملول أم نبيس سني شخاو بالا نيوسير سكو يملول مم سني فلو غير غوار جيم نك تيم أكسامو سني شخاو بالا دفع بيرب بوم دفع نيوكي سني فدلو سير سكو دم بام ناج لول مخاو دوي وار جامان الدعور نيانا كيروك لاخ بنتيم ديكو خيولو أمو سكر أمو سو أمو دار sëñ Fallou tàng kopp naan Cheikh Awa Balla taan tàng naan ba yàgg sëñ Cheikh Awa Balla sëñ Fallou na ko Cheikh mu ne ko Mbacke mu ne ko lu jiitu lii tus lu mujj lii tus mm-hmm. waa gis lu jiitu lii tus lu mujj lii tus sëñ Cheikh Awa Balla fa dem feneen ñu tegal ko ay mus wi na man ne damaa jaar kër sëñ Fallou te teraanga ju mel nii la defal ba dara xëjut sama biir ñu ñëw nettaliwaat ko sëñ Fallou sëñ Fallou yëg ko bàyyi nag ba ba doon xalifa ba xéewal gi daje mu woo sëñ Cheikh Awa la ba mu ñëw mu defal ko lu ci nekk ay ay ñaar fukk ak juróom-ñett ciy ndab ciy xéewal na ko sag baak sutura sag ma defaloon loolee laa lay delloo nii di la ko fay tey loolu kon day wane ne eh, sëñ Fallou ku sàmm la woon melaw mat a mat la doon la la doon dund waaye loola it na ci melaw yi tax eh, nit ki fi muy jëm mu mën caa yegg kon mooy faaw nga sàmm moo tax mu dajale woon lépp xajoo ñëpp dafa am genn kilifa gu baax koo xam ne sëñ Fallou da ko mos a ne ko teeng maa gane si mu ne ko man ne damay at damay damay ganuk sën maanaam dama dama bari ay ay taq-taq damay ganuk sën sëñ Fallou na ko may ëttub géej boo ñëwee lu diis tiig lu woyof na tong ci kaw bu duus ñëwee na ko toneet loolu mooy xajoo naa seen lépp daal maanaam mooy lu ne xajoo naa ko ci yéen ak noo leen mën a mel nga xam ne euh, loolu moo nekkoon melo moo tax sëñ Moussa Ka day wax wax doy waar day wax ne ballu banna nu juumun bi diw sëfut weer sëriñ faddilu mooy weer wi leen di jox leer alil faddilu mislul fala taxiisu jawaadan bi ximaarit fasa raisu nga xam ne loolu da caa tënk dane dane mboolem xeetu maam balla yëpp ay bidiw la sëñ fallu nag mooy weer wi leen di jox leer daan na kenn du fekk mbaam yi ngong nga koy daan lekk ay naari góor kon mooy jiitu gam jiitu ak raw gam raw waaye am woykatu wolof bi wax wax ju yéeme joo xam ne doy na sëkk rek mooy falloo placé yàllaa ko peese kon nga xam ne bilaa ifratin wala tafrit jooju ma doon wax ñëw na ci ëppalut yéesalut kon yàllaa ko peese te yoon wi du ëppal waaye du yoonu yéesal kon li tax mu placé yàllaa ko peese kon ku yàlla nat xayma la faw fay fay yamukaay ba fa ngay yem te loolu saxal na ak meloom ci Sëñ Tuubaa baat bi may wax it nit ñi dañuy wax ne wéetal sëñ bi ak kennal ko fa ci sëñ Fallu yeggoon kenn mosu fa yegg mas naa wax ne sunu waa ji moom la ñëpp di wër noonu doo nga ko am wasalaam nga xam ne wax ju gàtt la woon joo xam ne ci daje asalaamaaleykum du du yàgg la wax ñu ne teg ne sunu waa ji moom la ñëpp di wër noonu doo nga ko am wasalaam kon loolu wone ak bëgg sëriñ Tuubaam la waaye wane ak jeex ci Seexul Xadiim am la loolu nag mooy wane melo wi murid bi rar mel moo tax sëriñ Moussa Ka dafa am lu waxoon loo xam ne ndax am na ñett yu koy dolliwaat ma xidmatin aw bi xobbin aw hadiyati xam nga fi ne xidma maxabaa koy wommat lay confirmer ne nit ki am na maxaba it joxe fi ne boo gisee sëñ bi ni mu ko tënkee ñett bi xidmatin aw bi xobbin aw hadiyati fi ne boo bëggut sëñ bi doo ko mën a liggéeyal moo tax kon cofee lay ne ci digg bi xidma door a am bi xidmatin boo bëggee sëñ bi it maanaam bu dëgguwul ci yow boo koy liggéeyal doo ko mën a jox moo tax fi ne koo dégg mu ne sëñ bi laa yaakaar di waaxu rek li may wax gars yi na leen murit yu bees murit yu bees yi nga xam ne léegi mooy askeeg fasaaleek maa ngi sa ginnaaw képp taxul yoon wee dem fenn da ngay def ma am ba def hadiya sëñ mu Ka ne na amaana ku ñu naan muridun saadixun te fekk kooka mooy maridun saadixun day bay di lekk du joxe hidaaya kooku mooy murid buy sàcc wóor na gaay yi bu nee murid mu gaaw ne Mbàkke balla te xam ne moo dugu jiwatam yàlla bokk na ca melaw murid mooy fonk sëñ bi fonk lépp sëñ bi sëñ moo wax na ko léegi fasu sëñ bi sëriñ la lépp sëriñ bi sëriñ la sen bi mënu ko bëgg ndax señ tuba bi mu bëggee yonent bi lépp yonent bi la bëgg dëkk baag doj yaag day ñaan sax bay ñaan ci doomi doomi jigéen di ñaan ci sahabam kon fi ne boo déggee ko naan man señ bi rek laa faale wala señ bi rek laa bëgg wala nga dégg ko naan man sa bàyyi laa toppoon yooyu du waxi dara damay wax ne boo ñëwee ci garage fekk cette place ba sa maam duggoon sa nijaay dugg ca sa bàyyi ñoom dugg ca dem ca dëkk ba yow amoo pass amoo oto ba noppi di sikkal oto yi naan bii radiateur bi baaxul bii bi normal yow doo yegg fenn ab murit ab murit la fekk ab ab docteur nga am di faj jëmm ab sëriñ di am di faj ko kon boo bëggee sëñ bi lépp sëñ bi ngay bëgg lépp sëñ bi rek ngay bëgg sëñ Fallu noonu la meloon ci njabootu sëriñ Tuubaa gi ñëpp kenn ku nekk joxoon na la cër joxoon la wàcc wàccuwaay xoolee la sëriñ Tuubaa maanaam bu la gisee fàtte boppam gis sëñ Tuubaa ci yow loola it yób yóbbee woon na ko it ba waxuma la njabootu sëriñ Tuubaa gi waaye mboolem mag ñi toppoon sëriñ Tuubaa ñëpp boo xoolee seen diggante yi noonu la doxee woon moom sëriñ Fadilu nga xam ne amul lenn lu muy bëgg wala lu muy taxaw lu may luy tax njabootu Serigne Touba gi rek lañ bëgg lépp ñu am ko dafa mel na mag mu baax ci bokkoon ci mag yi sëñ sëñ yi muy sëñ Baara Xuréja doomi Mamour Diarra borom Saam la dafa waxoon baat boo xam ne wax naa ko démb ci jataay bala ci Saam ma ne bind la bu ñëpp war a jàng koo xam ne naka jubbanti na lu bari booba sëñ Fallu dafa dajale ñu bari ci yoon wi di waxtaan ak ñoom ci lu mu bëgg def ginnaaw yàlla moo wax yonente bi ne ko wa shaawirhum fil amr mbir mu mën a doon doo ci diisoo sa fan lu mu def da koy teg ci li ma la xoon yàlla li sëñ Tuubaa di dox mooy alxuraan lay doon ak sunna kon lu muy def ca la koy def dajale leen ne dañoo am na ñuy waxtaane ku ne génn xalaatam sëñ Baara Xuraje ba mu jëlee kat dana ko man de nii nga may yilife daa koo xamut nii laa yili nii laa lay yilife laa xam waaye xaw ma nag nii nga may yilife waaye léegi xam gis nga kon ni wutee sëñ Baara dana ko man de xaw ma nii no may yilife waaye li ma xam mooy nii laa leen di yilife mooy kon nun amuñu baat loo wax rek lañu wax loo waxut waxunu ko léegi nag gis nga ni jamono mel dañuy discuter nañ ko seetaan li sëriñ bi wax kenn mënu ko sëriñ ci seen bakkan lañ topp li ñuy wax enracé wun yow léegi kon fan nga bëgg a yegg ak foo bëgg a jëm te ñoom lañ amoon lépp jaay nañ ko jënde ko sëriñ Tuubaa loola may leen it ñoom it mboolem nun defoon sëñ Tuubaa rek nit ñi defaat leen noonu fi ne sëñ Tuubaa moom buy dal muy dal la tudd la ma waxoon sëñ Ousmane Diagne Jolof na ko fekk xool ba mu ne ko bu ma la gisee rek sama xel day dem ci wax la tur yi ma yàllay wooye na ko tee nga suñu borom ni di la ko wax mu ne ma buy dal muy dal loo loo jëfal ahmadu rek yàlla fay moo tax gis nga sëñ Fallu ni mu defoon sëñ Tuubaa rek noonu la ko nit ñëpp def fi ne ñi ko bëgg te xamuñu ko ñoo gën a bari ñi ñi ko ñi ko xam génération bi yi nga xam ne sëñ Fallu ba mu fi bàyyi kooku léegi léegi juróom fukki at yi yaakaar naa mat na ah wala bu matul li muy manqué bariwul ah, te téyewul tey jii ndaw ñii mujj juddu koo wax mu ne barki sëñ Fallu ah lu ko waral mooy kama tuddin tuddaan dafa jeexoon takk ci Sëriñ wa bëgguma ci di doom bëgguma ci di seex damay di taalibe bu ne sa ci biir bamba ji looloo tax nag ku làmb ci bamba ji dajaale Cheikh Abdou Fadal kon noo ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di leen jaajëfal di ñaan yàlla ngeen yàgg koo wootee te yàgg koo taxawu te yàggal fi njaboot gi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu